àddu ci euh, ndax euh, gis nañu tamit euh, gaañi bi nomination bi ñëwee ñu ci bëri tudd la ci lan moo ci xew véritablement ñu xam. ah yaakaar naa ne wax jooju moom féete na boor. Mm-hmm. ndax kilifa yi ñun bu ñu waxee ñun amatuñu lu ñuy wax. Mm-hmm. man li coow li di bëri yëpp maa ngi toog di seetaan rek jàpp suma ñaambur parce que liñ naan coow lu bëri xam li xew moo gën. Mm-hmm. te yaakaar naa ne ñun dañoo bëgg doon ay homme d'état je ne suis pas que dama jëbaat que je suis un mais loolu laa bëgg a doon. Mm-hmm, kon ñun duñu du nekkuñu ku ñuy ku ku di yóbbu nekkuñu koo xam ne tuuma dinañu tërëfloo te boo nekkee ci kër am ay kilifa lu mbir mi metti metti metti da ngay ànd ak dal ak tey ba kilifa yi wax. Mm-hmm. kilifa yi nag wax nañ la ñu wax leer na man awma lu ma ciy leeral. la ca am solo mooy ñi ma woo di ma jéggalu. suma téléphone bi vraiment ma sonn laa génne ne leen jéggal naa leen ci xol bu sedd gu yi ndax man comme man jullit laa te damay tooñ su ma borom. Mhm. su ma ay nit tooñee naa ci profité jéggal leen ndax ma am ay tiyaaba yu ma yóbbu donc man vraiment sujet boobu aw ma lu ma ci aw ma lu ma ciy wax. alors beneen bi mooy sujet beneen bu nekk ci table bi mooy coowal transhumance. ñu ne mhm. dafa mel ni dafa bëri ba tey wala sox mosu fee jóge ci réew bu Sénégal. Mhm. alors transhumance yow lan moo ci sa xalaat en tant que acteur politique euh, monsieur le ministre euh, ndax gis nañu am ñu leen rejoindre ci Pastef ñenn ñi ne transhumance lañ ñeneen ñi ne déedéet waaye lu mu ci mën di doon rek coowal transhumance lan moo ci sa point de vue. non sama point de vue mooy suma kilifa yi li ci doon seen point de vue et je pense que loolu lu nga xam ne non seulement dañ koo gëm dañ koo doxal maintenant l'exception ne fait que confirmer la mm-hmm. donc li ñu gëm ci transhumance mooy ku jàpp ne nguur gi da nga fay ñëw pour wut alal da ngay nax sa bopp ñun ñii nga xam ne man nee naa leen depuis ma nekk ministre <laughs> nga man bool bool la <laughs> nekkoon banquier nekkoon daal le privé ah je fait vingt ans à l'extérieur du pays liggéey rek laa xam uh-huh. mais quand tu es quand tu sers quand tu es dans la fonction publique mais tu tu es dans la fonction publique da ngay ne moment bii dema ma vie je suis dans une logique de service donc euh, fii fii moom lu lu vert dafay amut sax ba kenn. <laughs> kenn dara dara ñoru fi dara dafay ñorul sax bañ ko fay màcc. donc coow li coow li mooy sénégalais nag bu bu bu dem ba toog ne moom décidé na ne moom daal projet PASTEF léegi da koy jàppale am na si yaakaar loolu ko ñun mënuñoo tere kenn mu taxaw wax ne daa am yaakaar ci projet PASTEF ñun mënuñoo tere kenn koo xam ne euh, dafa nekkoon ca boor bale euh, nekk ca lam gëm gis ne sénégalais yi li ëpp lii la ñu gëm. ñu ñëw toog am doxalin wu ñu doxal leeral càmbar jub di jubal ak a jubbanti ñu dem ba ñoom ñu gindeeku ne léegi fas na noo yéene sax yëg yëkkati seen kàddu ne lii rafet na lii baax na loolu kenn kenn da ko mën tere kenn li am solo mooy ñun bu ñu nekk ci politique politicienne te loolu moom ku ñu ciy xaar di nga fande mm-hmm. reer woowu koy mm-hmm. xaar ci ñun di nga tu vas te coucher le ventre vide parce que ñu newuñ ci loolu d' accord c' est important question internaute yi pour une minute bu ci nekk rek. kii nee na moom nee na dafa bëgg a xam lan mooy euh, statut euh, cadre pôle territoire yi nee na ci gàttal xaw ma ndax comprendre nga. comprendre naa li mu bëgg wax. parce que ah. ñu bëri dafa am débat bu ñu andi dañu jàpp ne dafa war a nekk collectivité local mooy maanaam benn ordre collectivité. Mm-hmm. am ñoo xam ne dañ ne non établissement public territorial établissement public ETP lu état di jëmmal la. pour état mën ko contrôler ñaari débat yooyu moo am mhm. àdduna nag boo gisee ñaar yu xëccoo rek am na lu diggu doomu lu nga xam ne mu ngi ci digg bi mhm. loo xam ne moo gën a oyof mhm. tey ñaar yëpp a am solo te ñoom ñaar yëpp contracti contradictoire ñu mooy maanaam bii mën na bañ a dàq bële mën nga def ci pôle bi loo xam ne à travers l'intercommunalité de territoire te loolu am na suñuy loi ba noppi loi mayee na ko bépp kuy élu kuy acteur société parce que nag pôle territoire dafa dajale ñeent. Mhm, dafa dajale état dajale secteur privé dajale société civile ba noppi dajale yeneen pàcc yi nga xamante ne c'est plus euh, secteur euh, collectivité locale yi. Mhm. ñeent pàcc yooyu la territoire dajale. état collectivité territoriale privé société civile. Mhm. mën nga créer conseil bu nga xam ne day regrouper tous les acteurs ñu waxtaan ci justement. la stratégie de développement territorial. Mhm. mais bu nu waxtaanee ka koy jëfe mën na nekk benn euh, structure bu nga xam ne état da koo jëmmal ci pôle bi pour mu doxal mbir yi. donc souvent nit ñi dañuy. ils n'ont pas voté ils ont souvent les gens ont tendance. que d'opposer des idées qui peuvent être complémentaires. Mhm. yenn saa dañuy opposer lu nga xam ne. mais ñu am na deux millions yu voté wul jof fi teg loo xam ne day amal njëriñ ñëpp. donc ça veut dire que nag ne loolu mooy am. Mhm. mais dama leen yooyu moo am. am na bokk na ci li ñuy waxtaanee euh, suba. Euh, ci atelier mhm. mooy justement non seulement bëgg nañ indi benn l'agenda deux mille cinquante et la place des pôles territoires benn pôle territoire bu nekk bëgg nañu wane les grands fondements de sa stratégie de développement territorial waaye bëgg nañ présenter ces trois modes de gouvernance ba noppi benn bu nañu wax ba ca gën li ci topp nag kilifa gi moom mooy mooy wax ban la ci gën a bëgg defe naa ne moom tontu nga ko sax ndax mu ngi naan pôle territoire ak pôle urbain mais mais mu rax ci dolli mu ne Dakar Euh, dina am su juumul deux millions d'habitants en deux mille cinquante. Mm. mu ne or Dakar connaît aujourd'hui d'énormes problèmes de gestion urbaine. absolument nee na y a-t-il pas paradoxe ou bien quel type de ville voulez-vous avoir en horizon deux mille cinquante. Dakar dafa war a nekk lu nga xam ne bu ñuy xalaat Dakar waruñu xalaat dakaar pour Sénégalais dañu war a xalaat dakaar pour le monde et pour l'Afrique. effectivement. boo bëggee xam dakaar lu mu war a doon dans vingt cinq ans cinquante ans bul xalaat Dakar pour Sénégal. Mm-hmm. xalaatal dakaar mu nekk benn joyau pour Afrique et le monde. Mm-hmm. boo ko xalaatee di nga war a xam ne premièrement dëkk la bu nga war a xam ne du point de vue de la modernité dafa war a yegg foofu. tout du point de vue d'une ville intelligente côté numérique dafa war a yegg foofu. du point de vue de la restructuration urbaine génn ci bidonville yi. dañ ko war a restructurer. dañu war a construire en hauteur. dañu war a def dakaar mu nekk fu nga xam ne tourisme la ville d'affaires lay doon ba nag nekk benn ville culture. buy hmm. représenter Sénégal ci modernité. foofu ngay teg Dakar boo fa tegee foofu rek da nga war a xam du point de vue du cadre de vie et des espaces verts qu'est-ce qu'on doit faire. Hmm. du point de vue du mobilier urbain lan la ñu war def. du point de vue d'une ville lumière la ñu war def. du de vue de l'intelligence Euh, artificielle lu ñu war a def et du point de vue de l'attractivité du point de vue de l'immobilier dakarois lu mu lu ñu war a doon mhm. loolu nag orientation wu justement la stratégie de développement du pôle territoire de Dakar ci loolu la war a jublu comme ça ñu dajale ñëpp état collectivité locale le secteur privé et la société civile ñu ànd naal une stratégie de développement territorial de Dakar war koo def pour Kayor war koo def pour Ndar war ko mooy vallée vallée la vale war ko def pour nord est bi war ko def pour sud est bi war ko def pour sud bi war ko def pour centre Sine saalum ak centre Bawol bi ndax comme ça mu nekk les huit moteurs qui doivent porter notre économie et faire rayonner le Sénégal sur le dans le continent africain. alors monsieur ministre jeexal nañu émission bi ci période campagne la ñu nekk gan gu fi ñëw nag dañ koy jox ci njeexitalu émission bi mu nekk mot de la fin deux minutes. yoo xamante ne ni dañ koy wax mu convaincre sénégalais yi ah ndaxte day campagne moom itam donc monsieur le ministre suñ déclenché chrono bi doon la wax ne la convaincre sénégalais yi euh, lan nga leen di wax top c'est parti. li ma leen di wax mooy Sénégal réew la wu nga réew la woo xam ne fi ñu koy xaar. ci mu jëmmal Afrique fi ñu koy xaar ci mu yóbbu Sénégalais yi. gëm naa ne sori na fa jamono ji. projet bii ñu andi mu nekk lu nga xam ne amut sénégalais bu ko xamul teg nañ ko ci doxalin yi nga xam ne ci vingt cinq ans yi mën nañ jëlee Sénégal ci réew bu nga xam ne kenn ku nekk amoo lu tolloog mille six cent dollars ci weer ñooñu ko ba quatre mille six cent la quatre mille cinq cent mën nañu góorgóorlu ba nga xam ne c'est pour cent mën nañ ko wàññi ba dix pour cent mën nañu fexe ba réew mu nga xam ne koom-koomam yépp ci biti lay jóge ñu fexe ba réew mu nga xam ne territoire bu nekk territoire la buy porter le développement sénégalais bu nekk sénégalais bu nga xam ne day contribuer ci développement te loolu yëpp tubaab bi du ko def sénégalais bee koy def sénégalais bee koy def ànd ak sénégalais yi ñu wéer ko ci suñuy valeur wéer ko ci suñuy aada wéer ko ci gëm gu gëm suñu bopp ak gëm gunu gëm Afrique ak gëm gu nu gëm ne yàlla def na ci réew mi lu nga xam ne bu ñu àndee nekk benn teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg teg ko ci liggéey teg ko ci yërmande yàlla dina andi naataange ak jàmm ci même réew ndax kat ko wax su ngeen nekkee benn te góorgóorlu ma wàcce sama yërmande li ma gëm mooy assemblée nationale bii ñuy jëm assemblée nationale bu nga xam ne dafa war a daganal lépp lu nga xam ne exécutif bi yëkkati na ko mu nekk lu méngoo ak projet bi ba noppi nekk lu méngoo ak li ñu tëral ngir mën ko doxal pour Sénégal assemblée boobu doyu leen la ñu war a fal te pourtant sénégalais yi nag bu ñu joxee bopp ci làmmiñ du ñu jël loolu la jox ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak Ousmane Sonko ba noppi jël assemblée nationale di ko jox ñu nga xam ne ay samba àllam lañ te roon la ñuy def lu ñu jëmbat euh, waa àll bee ko moom donc gëm naa ne prétexte la dinañ jël assemblée waxuma ay daal di koy jox ñi nga xam ne bañ ci toogee ba léegi càmbar nañ lu nit du dindi yamuñu nañ lu nga xamante ne nii ku ci gis am ci yaakaar ñu teg ko si jub euh, jubal ak a jubbanti épinglé c'est important merci beaucoup moom may na leen sax huit secondes yoo xamante ne nii <laughs> ça se voit que ne ah donc euh, pare na pour convaincre leen merci beaucoup monsieur le ministre euh, mbégte amoon ànd ak yow ci waxtaan wi jërëjëf di la wax rek revenez quand vous voulez mais je reviendrai toujours parce que ici c'est ma maison <laughs> incha allah euh, yenn saa yi nag liggéey bi dañuy njat waaw woo xam ne surtout les six première mois. Mm-hmm. c'est les mois de diagnostic c'est les mois de structuration c'est les mois d'orientation yàlla dogal na ne mois yooyu tey nekk na suñu ginnaaw li ne suñ kanam mooy la mise en œuvre may jaajëfal nag suma mbokki Bawol. waaw commencé ko waa Touba. waa Njaareem waa Bambey mhm. nga xamante ne nii campagne bi ñun ñoo ko ànd bokk benn may jaajëfal sunu député yi mhm. ñi nga xam ne la am foofu sa Njaareem muy Aliou Sène ak soxna Kumba ñu mhm. nekk ay soxna yu am taxawaay euh, démb ànd nañ ñun ñëpp def benn say euh, def campagne bu am def caravane bu ama am solo te noonu lañ ko fas yéenee doxale di xaal nag suñu kilifa gi Ousmane Sonko ñëw bawol mhm. ñu wan nag ñu wan ko nag ne ko falaraay bi teene ñu ko bawol bawol yaa ngi toog di ko ñu koy toog di xaar xam ñun lu dugg rek matay la matay ko ci kàttanu yàlla ak mbaaxam <laughs> yàlla na ko yàlla yombal jërëjëf yaa ngeen jëf li mu def nuyu waa Diourbel ma def ko nuyu waa Mbacke bawol waa Touba donc suñu waa dëkk ñun ñëpp waa Tëngéej ak ñëpp ci biir ah cant ak ngërëm ñeel na leen merci beaucoup monsieur le ministre ah, Moussa Balla Fofana mesdames messieurs may fàttali ne moo nekkoon